tudd ak foo dëkk. man Amadou Touré laa tudd. Amadou Touré maa ngi dëkk fii Waagu Ñaay. Waagu Ñaay. Waagu Ñaay deux. lan moo la mën nga wax lan moo la yóbbu baal. ah sama yaay nee na ma damay tox yàmba quoi moo tax mu yóbbu ma foofu pour redressement. de temps là-bas. 23 mois laa fa def. 23 mois. mooy ban mooy ban ban période nga fa dugg. 2019 laa fa dugg xam nga 2018. 2018 xam nga xam nga doo sax kañ la. waaw gis nga. te man ba ma ñëwee foofu yàmba ma dem tere man ba ma ñëwee doomu colonel moo ma ko dem jaay. doomu kool la moo doon jaay yamba ci ma jaay benn dama jaay paka yamba bi à deux mille franc paka yamba mu lay jaay pakatu poon laxasu poon cinq cent laxasu poon cinq cent jar juróomi dërëm si biti cinq cent na ma koy jaayee dama jaay paka yamba bi mille franc paka yamba deux waaw lu ma fa nekkee vingt trois mois chaque jour ma tox yamba tox poon kenn mosuñu ma jàpp nag malheureusement. kenn mosu ma jàpp ci bon ma jàpp. mais gis ñu fa jàpp ñu dóor. ñu leen bu baax ba seen taat yi dagg. mosu leen gis mosu leen gis ñu fay ñu fay mos a évader na fa bëri na ay évasion yu am sama kanam ay cinq évasion ba pare seize personnes dee nañ sama kanam. seize personnes. seen seen tur a ngi nii ñoom ñëpp sama kanam lañ deewee ñoo ngi nii. seize personnes yooyu dee intéressé de ana ñu. sama kanam lañ deewee ñoom ñëpp. sa kanam lañ deewee ñoom ñëpp laal sama kanam. mais seen i mbokk dañ leen deesi. dañuy ñëw paqueté leen jël yóbbu morgue ba sànni bi lii ñëpp sama kanam lañ deewee seize personnes. da nga bind ko G7 bi. dama ko bindoon xam ne lii mënut a ñàkk. waaw ndax fii dañuy ñëw comme dañu ñëw brigade de recherche lañ nga jàpp. dañuy i fii xam nga ñii war a dem hôpital yóbbu wuñ leen ñii di wàcc foofu nii seen biir yi di daw foofu te amuñu benn toppatoo ñii di neewi di dee nii ku dee ñu jël dugal si seen oto pakete yóbbu benn morgue neexal élément bi sa parents yi ñëw. mais amul kenn kuy suul am ñu ma wax ne dana am ñuy suul foofu en face base non loolu moom fekkewu ma ko mais ñii ñëpp sama kanam la ñu deewee am na ñoo xam ne ma presque huit yi maa leen jàpp ak. ba si buntu kër gi ñu dugal si oto yóbbu mais mënu ma la fan lañ leen yóbbu. d' accord ñoom ñëpp ñoo ngi nii. ñii ñëpp sa kanam lañ deewee. ñii ñëpp sama kanam lañ deewee. d' accord ñii ñëpp sama kanam lañ deewee Cheikh. d' de la fin de la fin pour suñu parents xam ne sa doom soo demee ba di ko yóbbu si bërëb sax nga seetu man fi ma koy yóbbu lan fan lay tëdd ak la lay dundee lan lay lekk ak nan la fiy nekkee. ndax soo jëlee xar sax dugal ko si benn enclos ni ko ñëw xool mais jël sa doom rek sànni bàyyi si ay loxo yoo xam ne ñoo la gën a doye ji xam nga ndax nit xale soo ko bëggee yar na koy gën a yaru te yow tey mënoo ñu yar te ba pare yow mënoo yar wala nga jël sa doom muy def na ko si noonu nga ne da nga yar ay doomu jàmbur hypocrisie day taxaw amaana nag tey yàlla moo ate dogal lii nii affaire bi waroon yem fii jaarale ko seen loxo loolu nag ña leen sant bu wér si gërëm